ana jikko ci ñun TikTok yan danger la indi dinañ ci indi rek bëri na lool parce que 58 danger TikTok indil na ko àdduna bi waaye au moins dinaa ci jéem a génne 12 ba 15 ñu xool yan danger la ñu TikTok indil yoo xam ne kenn mënu koo lim mbokk suñu la laajoon ne la ndax mosu ngaa gis Iblis ci jëmmam budul à 100 pour cent yi neel waaw ñu la kan nga neel mooy TikTok. ndax li muy yàq fi ne iblis yàqatu ko waaye nag arme la ci armam mi arme la ci arme iblis yi mbokk yi tiktok rey na ngëm yàlla rey na kers bi ci njëkk tiktok cheytaanul marit wallahi tiktok cheytaane bu fetteerlu la newuñu nag léppam waaye li ëpp ci moom day dellu ci koy utiliser nan la koy utiliser mën na ko utiliser mu nekk seytaane pire ci moom wala mu nekk moyen seytaane loolu mbokk yi lañ ko bàyyi xel te mbokk seytaane suñu noonu la yàlla daf ñoo waxoon inna seytaane lakum adu fattaxisuhu aduwa nee na seytaane seen noonu la jàppee leen ko noonu seytaane day woo ay mbokkam li ngir ñu nekk waa sabara innama yadu xisbahu li yakunu min ashaabi sair mbokk yi TikTok jeu wu wallaahi jeu jeu la boo xam ni jeu wu seytaane nañ ko bàyyi xel ñetteel bi TikTok day lëndëmal xol en tant yow mi jullit TikTok dafay ñuulal xol da koy lëndëmal te wallaahi boo seetloo na nga meloon démb avant nga ciy commencé dugg di ko seetaan yaa ngi commencé sa jaamu yàlla di wàññi yaa ngi commencé di tayel na nga doon jaamoo yàlla dangay ngay tayal yaram bi day diis mu mel ni léegi bu ñu la woowee ci jaamu yàlla dalay tardel mbokk yi ñeenteel bi tiktok yaxulu baynal muslim wa imaani tiktok day dox diggante jullit bi ak ngëm yàlla li ma lay wax na mooy ki nga xamante ni da cee tamarrut koo xam ni dafa jël temps yépp jox ko ko comme nii mu ñu dalee tey dalee ko suñu jeunesse xanaa xama mbokk yu tiktok day sorel nit digganteem ak jaamu yàlla tudd yàlla ñu bari mënatuñ ko temps bi ñu war am pour tudd yàlla mënatuñ ko fu ñu toll ñu ngi tiktok tudd bi nga waroon tudd yàlla tiktok këf na ko ci yow tafu na ko beneen bi mbokk yi tiktok day génne leeru xol leer leeru ngëm yàlla ci xol tiktok da koy ba mu jeex teg bi gën a grave mooy sixième bi mooy <clears throat> tiktok day tax nit ki hijri quran tey malheureusement loolu am tey jullit ñi dañoo sànni quran fale ki koy jàngale ki koy jàng ki ko bëgg a jëfandikoo ñépp tiktok dafa dox seen digganteeg tey da ngay gis jullit bu toog di jàng puus benn page teg ubbi xool il suffit nga seetaan benn vidéo bu la yëm rek te nga alxuraan yaa ngi commencé seetaan ñan ngay seetaan est ce que li ngay am ci alxuraan bi yaa ngi ko am ci tiktok bi léegi nga bàyyi li la borom bi ne benn <coughs> alif gis kuy fecc ngay seetaan nga bàyyi tuyaaba yële j'imagine loolu mbokk est ce que sa xel yaa ngi koy xalaat. te ñu bari loolu subhaanallah laa ilaha illa allah yi hijra quran bàkkaar toog ay fan ay weer ay semaine ay bis jàngoo alquran lu dul soo jullee wa qaala rasulu ya rab inna qawmi ittaxadu hada alqurana mahjura te sa bi day sam borom sama xeet day jël nañu alquran sànni seen ginnaaw wallahi bu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dekki woon ñëwaat xolam du neex sànni nañ alquran ci gannaaw kenn jàngatu ko wala ñu néew ñoo koy jàng mooy xale yu ndaw yi mais mag ñi temps biñ ko waroon jox mu yokku leen yokkal leen tiyaaba mooy hajaru an qiraatihi jàngatuñ ko waaye hajaru an tadabburi seetlootuñ ko hajaru an simaai déglootuñ ko nit daana teg néegam alxuraan di déglu mais bu duggee day fay alxuraan jël tiktok mu remplacer ko li may wax nii ñu ko xam ci yéen bëri ñu doon toog sa néeg ubbi alxuraan balaa ngaa tëdd jàng ñaari yi tarato boo duggee rek iblis na la tiktok tiktok boo nee takk mu jël sa temps bi dëntil heure ba nga waroon tëdd da nga tàmmoon 10 heures 10 heures 30 11 heures nga tëdd boo xësee ba laal TikTok 2 heures du matin nga jëm ndax loo ubbi lu bon lu gën a bon na ci kanamam te loo gën di seetaan lu bon lu gën a bon di la gën a xaar nga ne xaaral ma mos bii bul mos de yaa yi boo mosee benn junni nga jëm noonu ngay def ba nelaw bett la te li gën a grave bi tax nga xam ne TikTok seytaane la boo koy laal doo bindante billahi ladi laa ilaha illa hu wallahi amul kuy seetaan tiktok bi dënti soo ko weddee jëlal alxuraan léegi commencé jàng balaa nga am benn xilib gëmmentu nelaw Iblis a koy def mooy bañ nga jàng alxuraan muy rocci lu ngay gëmmentu di jàng alxuraan gëmmentu nelaw waaye gis nga loolu balaa nga xam ne seetaane la boo gëmmentoo kéer a jël téléphone ne takk rek ne neel tik rek waxuma sax bul di toog sax neel tik rek nelaw yu jeex ngay seetaan ay fecc ay challenge yu bon ay way ay théâtre yu bon ay film yu bon seetaan yu ñaaw balaa ma dee na ñu naan tiktok geste bii rek la ñu ba mais na loolu loolu mooy loolu mooy tere jigéen bu futteeku nga da ban jikko bu rafet la ñu am banaan la banaan la dañ lay nax dañ lay nax commencé jël sa ngëm yàlla léegi bu dee daa nga jóg guddi naafila yaa ngi doon nelaw ba kasa rek nga dem naafila ñaar rakka ñeenti rakka nga commencé tiktok billaahi dootoo naafila demal un mois dootoo ko def parce que heures bi nga daan jóg juste booy seetaan tiktok ba une heure deux heures da nga mën a yeewu quatre heures kon këf na sa ngëm yàlla këf na sa ibaada moo tax yaa rab inna qawmi ittaxadu hada alqurana mahjura bi gën a garaaw yóbbu na nit ñi sax ci faaleetuñu sax attewoo alquran mbokk yi tiktok day dox diggante nit ak naafila bi gën a grave mooy fukkeel bi tiktok day may jigéen sañ-sañ xam nga jigéenu jullit bi boo doxoon dajeeg moom mu jil baa muuru di def loolu da nga naan kii dof la da nga ko yóbbu faju mais léegi day dugg néegam taal bokk iblis dafa ne woon yàlla ci yoon wu njub wi nga xam ni ku fa toog dem àjjana julli ñi danaa toog ci seen yoon boobu ne yàlla wallahi danaa tok seen kanam ba kenn dootul xool sey ndigle say tere rek la ñuy xool danaa taxaw seen ginnaaw ba kenn dootul gestu lu ko yokk ci diineem danaa toog seen ndeyjoor danaa toog seen càmmoñ yàlla danaa fexe ba ñu ëpp ci nit ñi duñu la sant tey mu ko li ëpp ci nit ñi santatuñu yàlla mooy jaamootuñu yàlla li ëpp ci nit ñi jaamootuñu yàlla tey toog seetaan benn football di waxtaanee benn équipe jeunesse bi yëpp loolu leen gën a gàtt te dañu toog dégg nodd dégg nodd waxtu julli jot mais fa lu nekk diw transfert am 56 milliards ki gën a ñàkk fayda mooy ki waxtaanee transfertu jàmbur yow un franc amagu ci waaw yow yow kii transfert am 250 milliards la yow nga waroon a fex au moins nga am 10 millions yow mais yow sa heure bi nga war a liggéey pour nga am 1 million yaa ngi ko toog di tardé perte sa temps yëpp waaw bi 2 heures du matin la doo nelaw doo nelaw da ngay toog nga xaar ñoom ngay seetaan ñuy liggéey. yow ngay toog di yàq sa liggéey yow li la war a teral ëllëg yaa ngi ko perte moo tax africain ku leen gën a dof ñu baal ma ñëpp waxuma ñëpp nag ku leen gën a dof amul parce que man mënu ma imaginer man ma perte sama temps man di la seetaan ba deux heures te li ma lay seetaan yow sa prime de match mën naa liggéey un an du ma ko am yow sa prime de match rek un an mënu ma ko am man ma ñàkk fayda di la seetaan yow xool ni mu ko dribblé xool ni mu dugalee bi non sa na ñu rey yow yow même bu dara li la war a yokk ci sa santé yaa ngi koy yaa ngi koy bafoué mais sa xel du ko xalaat doo xalaat da lay rey bu nga dem balaa ngay xam loolu fekk tardé nga mbokk yi li gën a ñàkk fayda ci suñu jigéen ñi nag lay jëm jigéen ñi ragal leen yàlla ngeen wàññi digta li ngeen di seetaan ci théâtre ëpp na te billaahi amul bu lay yokk ci sa diine kenn ci yéen defatul askaaru sabah kenn defatul askaaru masa jigéen nafah dafa am ñaari ngant yu nekk sa kanam yu mën a tax kenn du contrôler xam nga mënoo fekk ay jigéen ñu toog nga leen jóg julli wala diw la tey julli kooku ci góor dafa xaw a mel ni sag di sutura la mais jigéen bi seytaane mën day toog di seetaan tiktok nga ñëw doo ko mën wax julli ji ko wax dara fekk mën lan ngay seetaan kii kii géer la kii du géer kii ñeeño la kii du nàngam lan la la yokk yow lan lan la la yokk lan la changé ci yow lan sa temps yëpp nga jox ko te li may wax jigéen ñi xam sama waa kër nag laa njëkkee sama waa kër laa njëkkee keneen ku mu doon la qu'importe sama waa kër laa njëkkee toog ci tiktok seetaan seetaan seetaan naa fi la guddi kenn defatu ko jigéenu jullit jóg guddi une heure jóg allahu akbar julli ngir yàlla amatul ku ko ci def rek amagul jëkkër ku ko ci def amagul jëkkër xam na waaw kuñ la ciy waajamee naan la papam naa la <laughs> kii kay saabu bu ma jógee dama koy fekk muy julli sëyeegul bu sëyee un mois laa jël jëkkëram nga xool nga xam ne seytaane moo lay mën na ngeen moytu loolu tiktok newuñu lépp a bon mais mbokk defal lu lay yokk defal lu lay yokk fanweeri jigéen ngeen di seetaan benn vidéo bu ñëpp mën a bopp ku ne taal boppam nag ku nekk ne nii rek salaamaaleykum wallaahi duñ la fay waliyaadu billah góor ñi nag nañ ko bàyyi xel mbokk yi tiktok dafay tayel loo waaye bi gën a garaaw day yàq njàng dëkk yi mu dugg envoyé ko yëpp seen jeunesse njàng ma tardé moo tax dëkk yi avancé dañ ko xeex même Chine yi créé chinois yi créé tiktok seen biir dëkk nanguwuñ mu dem ni xalaatuñ ko dëkk boo dem ci ñu am fulla commencé nañ di xeex di bannir TikTok parce que day yàq seen jeunesse li gën a grave am na benn étude boo xam ne am na fi International ñoom ñoo ko def dañ ni it TikTok est un danger en santé mentale gis nga TikTok danger la gis nga wàllu santé mentale wàllu xel da koy feebar bëri na tey ñoo xamante ni dañoo am problème da nga gis ñuy dox nii nga fa ay dinañ def nga de góor yow bëgg ñu seetaan yow man da ngay gis ñoo xam da nga daan man lii léegi ñii ay nit lañ wala ay golo. léegi da ngay jékki rek di mag rek fecc fecc fecc ñu dox fecc def nangam gàddu sa saak fecc def na ay mag ay mag te xoolal Afrique ñépp léegi loolu lu ko góor goo xam ne deful dara ci TikTok lu dul fecc lay def xanaa xamoo ni nii yow man xam dañ segal koy vidéo la sa biir bàmmeel ngay njëkk a seetaanee li nga doon def ci TikTok. man gëm naa sax xanaa sax au moins yenn imuur yi nga def loo xam ne dafa góore mais góor goo xam ne fecc comme jigéen ñàkk jom ñàkk fayda ñàkk ñàkk da nga koy xool da nga naan kii ce que nit la xamul ni ëllëg nag ñoom ñooy nekk paa yooyu di xeex ak xale yi ci jàkka yi xale yi am leen fulla paa bu ngeen min ci tiktok bu ñëwee naan la ñëw leen julli ne ko kañ kañ nga tàmbalee julli yow nga fecc ci tiktok bi lépp dala koy dencal dala koy dencal góor war na rus a fecc comme jigéen loolu dafa ñaaw ci sa der waxuma sax sa diine dafa ñaaw waaye jigéenu jullit tiktok ñaa lan la créé ci ay fenkat kenn xamul nu mu toll ku nekk yaa ngi xëy di bëgg kaa da ngay chaque yow man mënuma comprendre yow tiktok bi chaque jour nga génne kaa waaye soxna si xam nga ni yaa ko gën da ngay fen yaa ko gën a chaque jour kaa amul fen ci àdduna bi mais bu la nettalee bii tey xel mi ràbbal ko beneen fen suba mu tegaat nga foog ni lii mbéjtal te fenn dafa xaraam julit war na koo rus mbokk yi tey visiteur tiktok boo xoolee ci àdduna bi dem na à peine un milliard ñaata la ci xaalis ka ko créé mi ngi am yow loo am mbokk yi yàlla day nee na wa ma rabbuka bi ghafirin amma taamaluun li ngeen di amma yaamaluun li ngeen def dara du ko ci réer kon ndaw ñi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk bàyyi waat leen xel ci seen avenir